ko teg ci suufa te ne leen leer na dañuy xaru te képp koo xam ne danga xaru boo dee safara nga jëm sëriñ bi nee na barsa wala barsàq gi dafa daal di araam la enquête yéen a kaay yi ak Sud Quotidien ak L'As nee na Touba wax nañu ci li nga xam ne mooy émigration clandestine bi daan nañuy tere mbooleem ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ñu bàyyi gaal yi nga xam ne moom la ñuy jël ndax gaal yi bu ñu ko jëlee lu leen ci man di fekk dañoo xaru yéen a kaay gi de ak enquête ñu fekk fa sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru daat nay wax ne am na benn dëkk bu tudd Mbengeen lu ëpp ñaar fukk ci ay taalibe daat nañu fay ñàkk ñàkk seen bakkan ci ndox mi libération yéenekaay ne Kébémer jamono ji mën na ñoo wax ne lu toll ci fanweer ak juróom benn ci ay nit ñu jëloon gaal gi ñoo ca faatu yéenekaay gi di critique ñu fekk fa Abdoulatif bali daat nay wax ne lim bi nga xam ne organisation internationale de migrations daat nañu koy joxe ci ñi faatu ci géej gi loole amul yéenekaay gi di réew mi ko di ak enquête la fa am mooy benn gaal boo xam ne dafa explosé ca Toubacouta ci région bu Fatick am na lu toll si juróom benn ci ay nit ñoo xam ne dañu sax di faatu bëri na ci ñoo xam ne ba léegi kenn gisu leen yéen a kaay gi di Sud Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci mbirum politique nee na Aminata Touré Amadou Ba Makhtar Cissé Aly Ngouille Ndiaye ñii Macky Sall yóbbu na leen frigo ndax munu ko andil ay jafe-jafe ci parti bii di APR waaye nag Macky Sall Idrissa Seck ak waa réew mi ñëw ànd ak moom jaral na ko lu ne ak ndax timit daat na koy jar ci la yéen kaay gi dikk journal bii di Les Échos ak réew mi ñu fekk fa Abdoulaye Balde nee na am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi ci opposition bi danañu fekki Macky Sall Mor Ndiaye mi nga xam ne mooy secrétaire général bu jéngu tabax Sénégal ñoom Boubacar Camara Camara daat na ñuy wax ne diggante Idrissa Seck ak Macky Sall ci tas la jëm nañu yónni yàgg diggante boobee mënut yàgg yéenekaay gi di enquête daal di wax ne Macky Sall taxawaay bi nga xam ne moom la am di dajale njabootu Abdoulaye Wade gi ndax Macky nekkul di dajale famille libérale bi libération yéenekaay ñu fekk fa Idrissa Seck nee na ñi nga xam ne ñooy ŋàññi ànd bi nga xam ne moom laa ànd ak Macky Sall ñooñu réew mi ñoru leen seen bopp kese moo leen ñor ak seeni intérêt waaye ñoom xam nañ ne maanaam tolluñu ma sax si aw waq yéenekaay gi di la quotidien ñu jàngee Idrissa Seck wax na li nga xam ne moom la doon waxtaane ak Macky Sall Idi nee na moom Macky li ñu doon waxtaane mooy lu soxal wàllum statut de l'opposition ci la ko Macky Sall waxee na ko Idi statut de l'opposition dama bëgg nga teg ko ci suuf te nga ñëw jàppale ma ngir nag njariñul réewum Sénégal yéen a kaay gi de Les Échos di wax ne Macky Sall man la tànnoon ngir ma nekk chef de l'opposition journal bi nee na Idrissa Seck ma ngay expliquer deal bi nga xam ne moo dox digganteem ak Macky Sall tribune yéen ñu fekk fa Tahirou Sarr moom nag daat nay génn ci parti bii di réew mi ndax dafa wax ne sa Seck dafa jaay élection yi avant bis ba ñëw élection présidentielle 2019 li tax Macky gagné ko Idrissa Seck dugal na sa loxoom yéen a kaay gii di li quotidien wax na ci autoroute à bi ak xaalis bi nga xam ne moo fay génne ak entreprise bi di Eiffage ni ñu say jariñoo Sénégal nag moom ruusit bi kese lay jël économiste bi di Meissa Babou daat nay wax ne mbooleem bénéfice yi nga xam ne mooy génn ci autoroute à péage bi waa Eiffage ñoo koy jël yéen a kaay gii di Les Échos mu ñu xamal laan ñu américains yi ak français yi daat nañu alerter seen njaboot gi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal daan nañ leen di wax ne leen moytu leen yenn bërëb yi ndax dafa am ay menaces terroristes ci réewum Sénégal maanaam Sénégal terroristes yi ñoo koy yott yéen a kaay gii di Dakar Times xëy nag wax ci accord de paix yi nga xam ne moom la Sénégal signé ak Union européenne journal bi ne na bëri na ci lu ci lëndëm bëri na ci tojange bëri na ci ay léexoor yéen a kaay gii di sunu làmb ñu xëy jàngee fa ne Balla Gaye numéro un daan génn àdduna ay atam toll na si juróom-ñaar fukki ak benn waa ahlu làmb jamono ji ñoo ngi ci dëj yéen a kaay di la Soleil nee na démb ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum football doon nañu jubile